jigéen nit bu gisee baax warta sàggan am jigéen ñu sàggan de am jigéen ñu sàggan lool lool te loolu daanaka boo moytuwut sum waay matière boo dem examen rek zéro lañ dafay may ndax yow jigéen joo xam ni kaas yi ndekkee mën na fee yendu ba ngoon jot kenn du ko rax bool bi ñu reeree mën na ko fee teg ba suba kenn ko rax saa saa sax sum mën naa ni day summi ay yérem jóor ko ca ca pañe ba wala mu sànni ko foofu ci biir néeg bi xale bi mën naa saw ci lal bi du ko changé du def dara foofa la koy bàyyi ba bu kenn xamut xale yi mën nañoo defar ci pod yi ci bunt du si fa la koy bàyyi ba bu kenn xamut loolu moom lu soof la ci jigéen loolu soof la waxu naa leen bokk na ci mën a sëy jigéen ji fexe ba def kër gi jardin foo wëlbatiku mi ngi set wecc foo wëlbatiku parfum baa ngi gilli foo wëlbatiku mi ngi neex a nekk loolu day waral góor di bëgg këram waaye am na góor ñu bare bare bare bare ah naa ni nag ñu wax ko ca dee waaye man wax ko ca gën a gudd fan ñu bare bare dañuy daw seen kër de loolu mi ngi am effectivement gis ngeen mën a taxawal kii du toog ah day wàcc nangam nangam léeg-léeg gis nga nit ñi dañu lay wax yenn problème yi yàlla xam ne da ngay xoolaat ba ci biir fekk bi du problème bi problème bi daa lu ko jiitu dafa am fondement gis nga fi mu nekk nii boo ñëwoon daal di ñop ñabalaat miir bi raaxaat ko affaire dana bàpp daanuwaat ci suuf parce que euh, fondation ba ca suuf moo yëngatu waaye boo ko jeqee ba ca suuf da ngay gis ni góor gi da kaa munta wax soxna si ci boppam moo salte mu wax ko te gudd fan nag soxna see salte parce que wax dëgg yàlla dendeg koo xamante ni yëf yëfaan yu kenn xamut xet gu kenn xamut ma nga lay xeeñ kër gaa nga taq wàcc fekk fañ doon añee kenn baleegu ko yaa ngi joggi ci buntu kër gi joggi ci kenn loolu moom kenn bëgg ko man mii sax bëgguma ko man mii sax wax dëgg yàlla bëgguma ko loolu moom yaakaar man kenn bëgg na xanaa góor ku dofee rek kon jigéen ji war naay góor góorlu góorgóorlu teg set gis baax dafa ànd ak xet qul huwa adan te jigéen ñi dañ koo ëppalante xam ngeen ñaq ni mel ci nit xam ngeen da ngay gis nit ñoo xam ne seen ñaq dafa fort trop seen tuur ndox xet bi dafa fort loolu ay nitam la loolu day am dafa am ñoo xam ne seen tuur ndox dafa fort xet bi dafa fort am ñoo xam seen ñaq xet bi dafa foor am ñoo xam ne seen gis règle xet bi dafa yooyu mbind la loolu du càggante loolu mbindu nit nit la léegi nag boo bokkee ci ñu mel noonu yaa war a xam sa bopp balaa ñu la ko wax jigéen ji di nemmeeku boppam baynal xiini wal aaxar di changé jëfandikukaay yi muy jëfandikoo bañ koo yendoo rawatina jamonoy tàngoor su yégee ni borom këram mi ngi ñëw mu fexe kat xëppoo ndox defaruwaat jekk-jekka lawaat mel na mu war a mel loola timit nag bokk na ci li tax borom kër sawar ci yow waaye wax dëgg yàlla koo xamante ni xet bi gilli moom dara baaxu ci ah da yaakaar ni sa sëñ bi dalay daw fekk effectivement day daw waaye li ko tax di daw ci yow la kon loolu jigéen ñu bàyyi ci xel moo tax dañuy wax ni jigéen ji gis baax dafa waram li ñuy tuddee anaaqa anaaqa ak jonge la xaw a jege maanaam baat bi jonge la xaw a gën a jege mooy xam nan lay gérer sëñ bi ba du yëg ni manqué na dara ca sol ka ga am na jigéen ñoo xamante ni bu ñu gisee règle même bu seen waram kër wàcce duñ solu déedéet moom daal mën naa sol ni lifir rek toog benn place noonu parce que dafa gis baax déedéet du noonu am na jigéen ñoo xam ne même maquillage yi ñu doon defal ak ya ca baax bu ñu gis nga jamono bi nga gisee règle sax nag ca nga ko war a gën def nag fa ndax dafa am yu bari yu war a manqué ku góor ki cinquante pour cent war nga ko wàññil ba dootu ko manqué te loolu parfum bi ngay parfum woo la ngay sol ila axiri waaye nag bokk na ci xereñteg jigéen mooy mu am mandarga muy mu borom këram di comprendre ni kii tey daa gis baax góor mën naa wàcc fekk la ci situation yoo xam ni soxla na la fekk dangaa gis baax tasum yaakaar moom baaxu loolu bokk na ci li koy dindi nga wut benn xeet yére bu rafet boo xam ni bii moom moom taar ba jéggi na dayo wala boog àgg na fenn fa ngay taamu ci période yi ngay gis baax nga di ko sol gis nga góor gi bu ne tëll wàcc fekk nga sol ko rek li muy njëkk xalaat mooy kon tey jii moom yaa quelque chose waaw loolu bokk na ci jonge jigéen ci mën a sëy waaye léeg-léeg góor mën naa soxla soxnaam fekk mi ngi gis baax yaakaar ju tas jooju mën naa am lu mu ko wàññi yooyu yëpp nag ay sew sew laa ki technique yoo xamante ni gis nga jigéen ji jàngut sëy moom day raata lay dem rek te xam ngeen ni raata lay dem moom wóoru dara baaxu ci parce que boo geesoo da ngay gis ne li nga defar dara baaxu